dal leen ak jàmm ci seen canal youtube diiwaanu muridina bismillahi rahmaani rahim bi Abdul Ahad moo ko defal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñ borom defal nu ci ngërëm àdduna ak àllaaxira barke maam Cheikh Ibrahima Fall bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu muhammadin wa sallama haasihi abyaatun fi cheikh ibrahima fall baabul muridina hamdan li rabbi maa sant rabbi moom mii ubbi ci làmpullaahi hamdan li rabbi maa rabbi moom ubbi ci làmpullaahi bàmbaa di sangam làmpa dib jaamam cheikh ibra kàngam muridullaahi bàkk la kañ la tagg la jiin la cheikh ibra way la war na wallaahi yaatee ñu sànku yaatee ñu dugg naari ba alku yay gor budul ko nag yow ñu alku kay yow ci yàlla ngir yow rahmatullahi Cheikh Ibra yaa tax gaa yi amum ndox ngir dañu daa dox di mooy wallaahi wëral nu bàmba ba jot ci bàmba andil nu bàmba ñuy sant sant la war na te jox la war na suñ xol yi war na ci ñun billaahi la war na te jox la war na suñ xol yi war na ci ñun billaahi jaamu nga yàlla ba buur gërëm la jox la ndigal la nga ñëw wallaahi nga ñëw ci duniyaa ngir yóbbu gaaya ñu am ngërëm ya ca rabbullaahi yow xam nga bàmba mu xam la bàmba def la buntam ba ngay baabullahi da ngeen a yàgg xam nga lu yàgg bàmba lu njëkk aadamullahi da ngeen a yàgg xam nga lu yàgg bàmba lu njëkk aadamullahi defar nga fépp defar nga lépp te won nga képp luy yoonullahi allahu yàlla man sant naa la ngir làmp fii la feeña ci xamal nu bamba digal nu bamba ñu wuy si bamba ba set xamal nu bamba digal nu bamba ñu wuy si bamba ba set ku dëdduwaa ji moo alkuwaa ji ku jubluwaa ji jublu na laahi ngir yaanu may sak bamba ñu doy sëkk cheikh ibra yaa jak rijaalullaahi cheikh ibra day dem fu fekk ab jaam di fexe bam dem ca buur wallaahi bu nu xamul woon làmp lu nuy doon ñu faatu ciy kon dem naarullaahi bu nu xamul woon làmp lu nuy doon ñu faatu cey kon dem naarullaahi amoo yaraanga borom teraanga Cheikh Ibra yaa nga jinaanillaahi gëm laa nu war nun xam laa nu war nun liñ ñu defal nun rëy na billaahi gëm laa nu war nun xam laa nu war nun li ñu defal nun rëy na billaahi yaa jar di sant di xëy di gont ba daanu faatu ngir yow billaahi Seex Ibra Faaloo nihma rajullu yow yaay kamaalu yaay baabullaahi defar nga jaam ñi xamal nga jaam ñi gindi nga jaam ñi xalilullaahi defar nga jaam ñi xamal nga jaam ñi gindi nga jaam ñi xalilullahi yaa jar sargal yaa jar di màggal ngir yaanu bàkkal jëf-jël billaahi yaa jar sargal yaa jar di màggal ngir yaanu bàkkal jëf-jël billaahi sallaa xalayka ci doomi màkka mooy géeru màkka sun géer wallaahi sallaa xalayka ci doomi màkka moy géeru màkka sun géer wallahi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa ci chaîne bi te nga activé cloche de notification bi ngir dara bañ laa raw ci li fiy bàyyi ko diiwaanu muridina la chaîne 100 pour ci sëriñ bi yam képp ci sëriñ